bis bu nu yàlla di moom yàlla na nu fekk nu gëm ko ci suñu pas-pas te daa ko jëfe ci suñuy cër ba ñépp xam ko rikk nañu fexe ba li dee di bette bette buy ñëw nu fekk ñu doon ay jullit dëggantaan tomb bi ñuy fàttalante day jëm ci alquran al karim bokk yi bu ñu demee ci alquran mi wax ak nun ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba legi ci nga xamne xamut lawan xamut waañaan mom alquran daf ñi wax ne luñ la laaj rawati nak lu jëm ci yàlla yàlla ci bopam yow nel ciow laaji ko ku ca dañ kumpa ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne woon usjudu lirrahman ñu ne wama rahman yàlla da ko nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa idha qila lahum usjudu lirrahman qalu wama rahman mu ne arrahman soko ko xam fasal bihi khabira demal laaji ko ko xamne pass passam pasam dëgër na ma koy jëfé bis bu set mu ne ca bu yàggee ba yàgg yàlla dana ko wan tuuti lu mu rawee ñépp yàlla moomu nag moo wax ci alxuraan ne alxuraan mii fi nekk ñu yore ko tam nekk ci àdduna bépp bokk na ci ay kéemaanam yim lottuloo ñépp bokk yi amul fenn fu bi fenk di sotti doo fekk alxuraan te jenn ji ba fi mu tollu nii genn jee amul waañaan amul laawaan tabaraka wa taala nee na yàpple na ñu mel ne dañ ko ne ki nga yabal ku mu mu ne ku bàyyi koo fi moom yàlla di ak leer gu leer nañ waaye boole ko téere bu leer nañ ay wax qad jaakum min allahi nuur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ci jublu boole ko ak biin mubiin kitaabun mubiin boobu nag gannaaw sallallahu alayhi wa sallama ci melokaanu doomu aadama bi mu yoroon am na fa muy tàmbalee dafa yem téere bi moom day wéy na ko yonent bi sallallahu alayhi wa jàngale woon di gindi kep ko xamne yaangi sakku ngeureumul suñu borom ta diko ko jaar ci yoon mom wax ko fa jaar su da dana ko genn ci ak lendam di ko diko gëna jëme ci ak leer ñi ngi ku joge ci guddii ku jog fajar di dox lu mu gën di dox lamp yam yoron di gëna ñak ndariñ ndax jant baangi ngi bëgg fekk té suñ taxawul dana leen yóbbu fañ bëgg àgg qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin yahdi bihi llahu man ittabaa ridwanahu subula salaam wa yuxrijuhum min alzulumaati ila annuuri bi idnihi wa yahdihim ila siraatin mustaqim suñu boroom dellu wax ne alquran jii inna hada alqurana mooy jii nga xam ne moom lañ yore ñun yahdi lillati hiya aqwam day gindi nit di ko yóbbu ca yoon wa nga xam ne moo gën a jub ci yoon yi amul pakk amul ay dëkk amul luy tarxisloo nit di ko daaneel su wàccut yoon wa ëllëg pay gu rëy lay am waaye ku ca sikki sàkka wala nga deng deng ca wala nga dem ba yàgg nga defee ne yow àgg nga foo xam ne danga ko war a joxoj yal yàlla musal ca loolu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما يا أبجولي ديغم بوتا واي خوري كو باي والنا ليب بوك يي جيم نيت كي مونو ني اي ريحام كاسي موما نيه سي موم مونو ني اي گيتو nit ki sokoy koy bëgg da ngay bëgg léppam ndax moog lépp an tud nit ki kon alquran mom moy ben téré ci kaw suuf bo xamné liko mokal ko ben téré fa gën sori ñan ñu nek fañ nek dañ nan fa sori ci ñoo fenen fo fa a sori waye so fa démé laaj ko ñu won la ko moy bi nga xamone fi ci réew mi kenn te lu ay at yàgg-yàgg ci ginnaaw it moo yaggaa yooya yoroon Seydina Omar nee na yonent bi sallallahu alayhi nee na alxuraan mii nit dana ko jàpp di ci dox di ci liggéey ba xëy bis ñépp di ko séen mu ne ca kaw te dutu wàcc waaye nag nee na nit dana ko def noon ca lay doxe wàcc ba faw te dut kenn dutu ko séen إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين لولو نينكوي جيس تي سون جامونو موم ريك لاني جيس تي بن تير بو جوخي اي نيهالي نانغامي مليون تي أدن بيب بو يغوتو ريك فان يي ريك امنا كو دك تي وتي توبا نيو نا يور تي اورايا اك يكو جيتو اك يي تي توبات كانام لا جيم mu ni su sa weesoog moom nag ci doye dal ko jël almet ak këyit taal ko mu tàkk waaye loolu da koy gën a siiwal day tax nit ñi gën koo bëgg day tax mu gën a barkeel ndax jëkkoon nañoo jaar ak moom foofu ci ay jamono yu yàgg ci réew mu mag moo xam ne benn waaye moo ko yëkkati ne kii feeg teggaliwu leen ko jullit yi duñ mën ci ñoom dara am tàng xol bu ko ne ma gis mu jox ko ko mu xottite ko dëggte ko mu ne ko da ngay sonal sa bopp nekku ci bibliothèque way ci dënn yi la nek ci dënn yi la nek nit ñi dañuy jam di ànd ak mom di jam fu ñu jëm yóbbaale ko abdullah ibn amr ibn al as radiyallahu anhu ma neena ëllëg kenn ku nek fa alquranam toll fam ci toll lam ci jàng buy dem aljana aljana ci toll non lañ koy jox ndax dañu ne ko sarel mu tari su taree juróomi isib ci misaal am àjjana ju tolloog juróomi isib su dee fukki isib noona ba ba ba muy mokkal kaamil bi ka ko mokkal ci di ko tari rek it nag lu am solo la waaye di tolloo ak ka ko mën a du ko xool noonu la daraje di rawante yuqaalu li saaxibi alqurani iqra wartaqi wa rattil kama kunta turattilu fi dunia فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها آه، سيدنا عبد الله بن مسعود نك نانا كيب كو خامني لوني كو لاج مو تونتو تيا بو نين دي وري كو يانو اي ساغرام بو نين كو تيغي دي كو جيس ان الذي يفتي الناس في كل ما يسالونه لمجنون مك نيغا خامني نيوون نان سي ريو مي jàng ba am ci ñuy wooye ay tafsir fassara alxuraana tafsira bari nit ñooñ boo leen masaan laaj dañu naan négal ba ma sekku ci téere ba ma yërewaat téere yi ba xam waaye tontu fa saasa déedéet néew na daal di teg ne képp koo xam ne laaj nañ ko loom xam na wax lam xam yam ca su ca xamul dara mu ne yàllaa ko xam xawma ko yàlla xam na ndax bokk na ci xam-xam bu set wécc bu ne laajee loo xamul nga ne xawma ko yàllaa ko xam آه، من سئل منكم عن علم هو عنده فليقل به فإن لم يكن عنده فليقل الله أعلم فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم كن دار وحنك الهاج مصطفى جيت نكون فيك سنغال دي بروم خم خم بلو أب خم خم الله أعلم دانا كفيري يالا دال مو خم لولا مو ليور نخ أعلم دايما نكي دا خم كي خم كوخ جن لين خم واي moom dana yàlla daala xam te mooy la wér allahu alam yàlla daala xam bokk yi bu ñu demee ci alxuraan yi si nit ñi xamut ba di ci tàndale bañ di leen ca joxoñ ñaata nit lañ ñu ne gàññ gàññaatam te ñu ko bàyyi woon noona rek ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon ña ko fekke woon ba muy wàcc bàyyi ko na ña ca topp topp ca ba suñ jamono suñu demee ci suratu ali imran mi ngi tàmbalee ci alif laam miim alif miim jox ji ña ca amoon xam-xam lool ci alxuraan dégg arab lool xam fànn yi ñuy dégg alxuraan lool ndax waxi arab la buñ ca accès dina allahu alam bi muraad yi yàlla daal moo xam lim ci nam wax nañ jëkk waaye danga ca fekk muy wax ne alxuraan boo ko ubbee da nga ca fekk aaya yoo xam ne day àtte mbir xaraam na dagan na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca la tënku di xaraamal ak a daganal yam ca waaye nee na am na aaya yoo xam ne da nga koy bàyyeeg ña ca xam rek ñu wax ca lañ xam mooy taawi huwa allazi alif lam mim allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummu alkitabi uxra mutashabihat fa ama allazina fi qulubihim zayqun fayattabicuuna ma tashabaha minhu ibtigaa alfitnati وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله أمنا كن يوانت ألا يفلد التفسير لهم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخ والراسخون في العلم ألا يفعل نقول واو غوغ بوك واو غنان أك واو غوغ لم دون راسخون جا لواو نك صلى الله وانا بسم الله الرحمن الرحيم الله وما يعلم تأويله إلا الله كن خمود نوكي تأويل كرور يالا دلنك الراسخون في العلم ينغ خم نسين خم خم سخينا يقولون آمنا به كل من عند ربنا ألف لام ميم ألف لام راء أك حاميم يب بنك خمي بنكو خمود خم نجع القرآن تعال القرآن لا بقرأ يمتى buñ ñu ko tënkee danañ fekk juróom benn alif lam mim ci alquran yo xamne benn bu nek la ci tégué da nga ci déggé ni alquran mi du ay caaxaan du ay mbourënt du waañaan du laawaan boppu alquran alif lam mim zalika alkitab la rayba fi la rayba fihi hudan lilmuttaqin am na yeneen <clears throat> alif laam miim alif laam miim ahasiba annaasu yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanoon loolu lu cay caaxaan mbaa du nit ñi dañoo jort dañ leen di bàyyi fii rek ñuy lekk ka naan tëdd ka nelaw rek boole kook nag di tuddoo ak gëm yàlla te duñ mas a tase ak benn nattu mbaa jotuñ loolu buñ ko jortee juum am na benn alif miim تلك آيات الكتاب الحكيم سورة يونس أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم بمعك فوفي تاخر نكفا أمن بين ألف لام ميم من كسورة سجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتهم من الذي من قبلك لعلهم يهتدون foofa du fa caaxaan nekke waaye am na <coughs> ñaata alif laam raa mat na juróom ñaata yu bari lañ waaye su ma ko tënkee ñaata xaamim bari na amu ca benn booy dem boo xam ne danga ca fekk ay kaf nekk fa ak i waañaan wala laawaan alif lam miim saad ñi tayyu li naan yàllaa xam lu ci jublu wax nañ dëgg waaye la ca topp kitaabun unzila ilayk fala yakun fi sadrika harajun minhu li bihi wa dikra lil muminin foofa it caaxaan amu fa alif lam ra tilka ayatul kitabi al hakim naa ko léegi am alif lam ra kitabun uxkimat ayatuhu summa فصلت من لدن حكيم خبير أمن ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أمن ألف لام ميم را سورة الرعد تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أمن ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سورة إبراهيم ففي تاخر نكفة ألف لام را تلك آيات الكتاب والقرآن المبين سورة الحجر فوفا مموسي جنا نك ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين bis dina ñëw ñi gëmutoon yàlla wala ñu diko ko joxoñ dañ ne ngéej doon ay jullit deug deug waya zarhum yaakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa yaalamuun bay leen ñuy lek ka naan aka bànneexu ci aduna rek ak di mébat di tek bis dina ñëw ñu xamne lépp deug la amna benen alif lam ra dedet kaf ha ya ayin sad moo ci topp moom ñi ko don tayul dina yàlla rek allah aalam bi morati jimu ni ko taawil jéemuñ caa xam len ludul non la ko yonti bi jànge non lañ ko fek non lañ koy bàyyi dikru rahmati rabbika abdahu zakariya ويا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى لولا يت فن لو نيروك تاخان نيكو siwna lol ne sayyidna Omar sax mom mom lañ ko jàngal mu deg ko ci la toube dug ci l'islam wa taasin mim tilka ayatul kitaabil mubin amna suratu shuara laallaka baaxiun nafsaka alla yakunu muminin wa taasin dal amna mo suratu naml tilka ayatul qurani ba kitaabil mubin am na mim mimit mooy suratul qasas تلك آية الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون كن بوك أكا سوري أكي لاوان أكي وانيان أمنا بنين ألف لام ميم بوخاني أكو قمو تاوان موي سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون لولا تاخر نكو تاخر واي الف لام ميم تلك آية الكتاب الحكيم هدى ورحمة وبشرى للمحسنين سورة سورة لقمان مهم لا توب ليب واخا تا خامني كوتا فوفا نك امنا فوم واخا نين تو جامانو امنا ньо خامني جومتو واي بيسي خيو لغي دنج كوي جيفانديكو دي تي رير دي تي ريرال نيت ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليذل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزءا اولئك لهم عذاب مهين لهو الحديث آه، كدم من نقول لاي ورام خام خام لوم ورا دون سي سن القران ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم فوفيت اي فو نيكو فا ويا صاد وين حرف لمام والقران ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق لك طب طب ويا حاميمت امن تنزيل الكتاب من الله العزيز الحليم عليم موسوعة غافر وأن حامي تنزل من الرحمن الرحيم سورة التفصيل يعني فصلت كتاب فصلت آياته وأن بخوا جن جدوتي بخوا تنحى أكافا يا عين صاد حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذي من قبلك ففايت لا تطلب تخانك وجه أه، ما يحبش كنا منان آه، لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في الشعير أمن حايم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم موسورة الصغر الزغرف أمن حايم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة موسورة الدخان وأمن شمسوث الجاسيه حاميم تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين ففي تخل نكفى أك حاميم تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمع duñ fi sax dañuy woo وبنيان في بعض dajanoo دمنا yoon fi barab ñii ñuy demee nag nii ñuy demee lañ dikke woon kama badaakum taxoodoo waaye bis dinañu ngi dajale ñun ñépp maa xalaqna alsamawati wal arda wa ma baynahuma illa bilxaqi wa ajalin musamma waaye am na boo xam ne wenn xaraf la ni saad qaaf wal quran al majid bal ajibu an jaahum munzir minhum saar woowu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana ko xutba aljumaa ba am na soxna soo xam ne ci diglu gi ñu koy diglu ci aljuma ji yonent bi di ci waxtaan ca la ko mokkale waxuma waxtaan li ci xutba laa wax ca la ko mokkale la ca nekk ci ay tiit ca la sukuraata nga ca fa sawaree laaje fa yàlla laaje sawara ndax fees nga mun naa ko loo ndax am nga loo ma dolliwaat ca la nekk ma nga ca wala xad xalaq na al الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بعكسه وجاءت سكرة الموت بعكس ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد بعكس يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعظنا لكل أواب حفيظ waaye ولن حرف واخم نون والقلم لا نون والقلم وما يشترون تنكن لب ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم يلا خم نجيب لك نون واي لي فيك خلي ما نجي بند دي سب دا نين نعم، خم ني كي نعم، اندال خمولين كو خمغولين كو waaye ku ko jàppe lu dul xéewal gu leen yàlla yónnee xamagu leen ko dara jotu ko kocc la def te sax li ne ci moom ci ay jikko nekkul ci kenn xam nga ñu ko wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fasa tobu si wa yubsirun bi jikko maftuun daan nag yonent bi sallallahu sallam wala fala tuti'il mukaddibiin waddu law tudhinu fa wala tuti' kulla xallaafin mahiin هماذ مشاء بنميم نعي للغير معتد أثيم وسلم بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على القرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة كودم تي ورم خم خم xam دال dendal nañ laaj loolu القران داي واخ اك نون تي لا نيوغول نون ني في نك واخ ني سين سين تاي نمي ديمي واخ ني ديمبو لي ديمبو لا كو واخون ني فكي ودون نون واي يال نون يالا ديمبل با بون تي بوك ني دون ييغو تي القران گم كو گم نتي يالا بايكو جار تي نبي صلى الله عليه وسلم لاج خام لوم دون لوم لوم خامول لب نيو ويرو سي الراسخون في العلم نيوم لا يقولون آمنا به كل من عند ربنا دلو سي تك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يلا يلا بو جينغال سوني خال اك سوني خول اك سوني گم غنا بو تيغي لوخو سي ليغا خامني موي لي وير وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين امين